arbitre sifflé na ñoom ñaar ngër bu sawa Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye Obali ma ñu woon borom ngeen bul xonq li ngër ma nañ jàkkaarloo ma takk musóor ba ca bopp ba ngeer eh ngeer jébalu si na ngeer la waa <laughs> lii lan la xoolal ma xoolal ma xoolal ma ko kii mooy Obali hey kii mooy Obali kii mooy Obali. na ko ko Obali. Obali na sa place. Obeuli fii du sa place ci lamb fii du place de fii du de Obeuli fii du nañ ko jox ay adversaire am ngeer mi dafa la ga mais dafa màgget dañ ko wutal combat yu mag waaw jël bi 1 million yu tàng bi tàng tey juguri naa la jënd billet un million xam nga kan laa soxla na ma jox Maodo wala ñu jox ma doomu tàngu wala ñu jox ma Coence ñooñu laa war a bëreel mais du ñii lamb gi du ñii wallaay rasim du ñii fu gars yi teg suñu bay fu nga san ak cent vingt kilos cent ay morom ñoo fi nekk mun ñu koo daan xale bu ndaw la quatre-vingt-douze la judd dañ jox ay morom moo gën paa yi ñu koy jox li du lamb